Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël, de la confiance renouvelée, merci d'ouer des likes, merci d'ouer des abonnés, merci également de bah ici des commentaires, plaisir renouvelé là il donne chaque fois Gaël de partager une information et un bouc sénégalais, il fait faut le maintenir également 14 jours du Sénégal au groupe il y a des fois il y a des fois il y a diaspora bi len faté ñi nek ci lal hôpital également a des fois, il y bokk des fois, il nek kasso des borom il y a des fois, il y aussi hein fois, Il y a erreur judiciaire il ñu def des fois, il y a des aduna il borom a adina fi il ci Gaël des fois, il on avance ensemble toujours dans la magie de Baba Show et les sportifs actuellement actualité de nag yi waxtaanee li nga donc Jude Bellingham ak Angelotti, Les ko Angelotti wax ci kan ko remplacer Cristiano Ronaldo ak Money, bien ñu Portugal ak aussi clash et Mbappé ak Paris Saint-Germain mais là tu as aussi gagné des invités. invité. dem ci chaîne bi aussi de Baba Show abonné fa à à gën agrandir la famille fekk fa actualité jëm ci Vinicius Junior l'unico propose actuellement à mu nar par euh, Real Madrid Ou également détaille détail contrat pour Nicolas Jackson les di encore ko am Baba Show vidéo déjà disponible neuf. Qui nak nga xam ne donc qui euh, euh, dit ah, donc Erling Bro Haaland mu na encore jour du mois du côté de la Premier League mu nek ñetteelu yoon ah, donc troisième fois mu koy jël depuis bu ñëw du côté euh, de Manchester City Erling Bro Haaland qui nak di David Raya le gardien d'Arsenal mom lañu tab mu nek meilleur sauvetage du mois donc maanaam sauvetage bim bim def donc mom lañu ñu koy David Raya le gardien donc des Gunners d'Arsenal jëm ci benen jour boo performance en 2024 Big Air mais c'est 33 buts 11 passes décisives pour Kingham donc Pierre-Emerick Aubameyang bi nga xam ne ah, donc ballon d'or bi c'est un sérieux candidat bu ñu ci performance am ak mais aussi que dire de ki donc Brahim Abdelkader Diaz moom 5 matchs 1, ah, donc 3 buts une passe décisive moom muy du côté donc du Maroc ah, avec l'équipe nationale marocaine moom bokk na aussi en forme yi ils sont en Afrique Brahim Abdelkader Diaz bokk aussi candidat pour ballon d'or africain bi Yves Bissouma aussi 4 matchs 3 buts et depuis début saison aussi le capitaine malien hein, parce que travaillé la fait blessé mon le c'est un fait dur mon capitaine bi actuellement en attendant pour voir de Yves Bissou Ma Tom Saint-Fit Nagaï prolongé plutôt a un contrat officiellement du côté du Mali de 2026 euh, ans donc euh, le d'aller signer deux ans le signer donc au Coupe du Monde 2026 Tommy Tom Saint-Fit du côté du Paris Saint-Germain qui a donc euh, bien évidemment Marquinhos mon le tabou tabb le nouveau capitaine comme nous connaissons nous avons fait le vote nous gañewaat ko nekk capitaine Paris Saint-Germain Kimpembe moo ci ak donc Donnarumma Achraf Hakimi ci capitaine mais aussi clash bu métti moy am fimné ni ma Mbappé à la a Paris Saint-Germain ñu am recrutement de mooy maanaam fi mu Paris Saint-Germain tribunal arbitral du sport la ligue française de football ñoko avons wax 55 na fay 55 millions yi mo fait fay Mbappé daw bu ko fayul dal mën nañ ci dem ba ñu interdire ko ah yoon wax bu recruter saison prochaine donc le Paris Saint-Germain fimné ni dal nek que tu ci au trou parce que Mbappé moom plus grave erreur Paris Saint-Germain moy bañ clé wu Paris Saint-Germain jox ko Kylian Mbappé parce que doo amee jour yi fa nek cadre yi fa nek dakh bu football boy bi nga jël ko teg mais comme que France nek aussi il voulait faire le beau maintenant gis nañ ko ki nak di nga xam mooy donc Carlo Ancelotti wax na ci match euh, bu Real Madrid championnat nee nag Arda Güler c' pas un pivot joueur le boo xam il est beaucoup plus technique donc euh, buñ koy placer tamit ci côté bobu dañ koy daal placer mais tamit wax na ci li nga xam mooy donc ki di Jude Bellingham Jude Bellingham moo koy xam ngeen do euh, rakkam bi di Job Bellingham boy bi également mi ngi ca mi ngi ca Birmingham. Bellingham jouer Bellingham bu mais excellent am dafa match qui dit que le di Jude Bellingham dafa dougal triplé bu mu triplé nak ki di euh, donc frère am di Jude Bellingham néna Carlo dafa ne ko man recruter. ko frère dama koy recruter mon ko wa légui boko recruter lan lay def ah, ko dama indi pour remplacer

Barcelone mais ci joueur yi ñan ñoo ci flop yi pour yeen ñan ñoo dal ngeen japp ne ba ñëwé Barça defuñu fa lenn man amna ci idée moo ci génne moom mëna ci génne génne ñaaw ñaara ah. euh, ñi di Portugal nak génne nañ seen monnaie 7 euro bi 7 euro bi nak en hommage à Cristiano Ronaldo lu moo tax ñu def ci photo Cristiano Ronaldo bi CR7 pour rendre hommage ci li mu def ci football donc li moy 7 euro bi nga xamné Portugal moom la daal di génne jëm ci Cristiano Ronaldo les amis li mo nekkoon information ñen bëggoon toujours un plaisir hein, de vous servir de leen wax ngeen wéy di like di wéy di abonner on avance ensemble toujours dans la magie de Babo Show Presidente Esportivo